وجاد وجه لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربانا فنكب تي في تلخادم رسول Euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jégalu bu baax di ziare di nuyu euh, di ziare sëñ Mamour Mbacke mi fi teew di ziare jëwriñ di ziare sëñ Kayta Thiam maa ngi ziare sëñ sëñ Moustapha Diop di ziare waa executive team bi yëpp ak jëwriñ yi fi teew yëpp tey di leen ziare bu baax a baax. Euh, euh, man maa war a ñëw fina euh, présenté finance ci jëwrinu sëñ Xaadim Siise yàlla na ko suñu borom bi yëkkate ñun ñoo nekk ci finance muy man soxna maam Jaara ak sëñ Moussa Niang ak sëñ Abdoulaye Seye ci supervision sëñ Moustapha Diop ak sëñ euh, Fallou Samb président li ñuy présenter tay ci finance moy comme finance ni mi di nga xamee ni la ñuy euh, finance li mo yore euh, li ñu li ñuy kii yëpp mooy xaalis bi nga xamné mom moy ñëw ci fondation bi yépp mom la ñuy aussi ak li nga xamné mom moy génn ci fondation bi léegi li nga xam ni moom mooy génn moom mooy dugg ci fondation bi ni nga xam ni finance noonu lay liggéeyee muy xaas bi dugg xaas bi nga xam ne moom mooy génn finance ni ñuy liggéeyee ci xaas bi nga xam ne moom mooy dugg yëpp dinañ always make sure que uh, bu ñëw bu nekk dinañ ko allocate ci compte bi nga xam ni foofu la war a nekk lu ci mel ne xaas buy ñëw bu nekk lu ci mel ne campagne yi muy Kër Sëñ Touba ne li ci mel ne hadiyatu rahma ah, lu ci mel ne ah, li nga xam ni moom la jigéen ñi di ah, di organiser ci community services yi ñuy def ci kii yeeg yëpp lépp lu ñëw rek lu nekk dinañ make sure ni dinañ ko alloquer ci compte bi nga xam ni foofu la war a dem ak also li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy génn luy génn lu nekk am na approuve boo xam ne jëwriñ dina ko approuve ak ki nga xam ne moom mooy euh, jëwriñu boo def euh, directeur bi muy sëñ sëñ Babacar Diouf Canada mm-hmm. léegi li nga xamee ni moom la ñuy euh, liggéey ci finance fan request yi képp kuy request luy génn lu nekk ak fu mu mën a toll

approuve ko pare mu soogaa ñëw ci finance léegi bu ñëwee ci finance ba pare dañuy xool ba xam approuve nañ ko ou bien ba xam dafa soxla euh, more information ba bu fekkente deny nañ ko buñ ko approve ba pare nag ñu soog koo finance soog koo dispose so buñ ñëwee fii si la ñuy gis ni approuve nañ ko ñu soog a def disbursement bi léegi li nga xamné mom la ci approval bi li nga xamné ci année bi euh, année fondation bi li nga xamné mom la jot lepp ci ak lu nekk fi nga fa la dugg mais comme liko ko Les adiyatu Touba bi li ñu jot mi ngi li nekk ci Al Azhar University bi ñu yóbbul sëñ ngi Mor mi ngi tolloon 21 029 40 ñi nga xam ni ci convention bi lii moom mooy hôtel bi ñu xam ne ñi ñi ñëwoon fayal seen bopp hôtel bi yi nga xam ne jigéen ñi moom lañ doon organiser si fondation si kii bi convention bi aide yi ñu doon joxe fifty fifty daal yi mi ngi tolloon ci one thousand nine oh euh, li nga xam ni moom lañu dajale woon muy community service bi ñu war a bara def pour ramadan bi li ñuy organiser mi ngi tolloon ci fourteen ninety li nga xam ni moo nekk xadditu rahma bi ah, bi bu année bi mu ngi tolloon ci one seventy five three three five point one li nga xam moo nekkoon ci kër sëñ Touba fu ne liñ fa dajale woon yépp ak waa Chicago li nga xam ne moom lañ indiwaatoon soo ko ci booleem lépp mi ngi nekk one fifty eight three eight one li mooy three thousand one fifty four mooy comme bukki yi ñu doon bi ñu doon wecceeku muy éducation léegi boo ko xoolee lépp li dugg ci FONCAB ci xaalis ci année boobu yëpp mi ngi toll ci five hundred sixteen six hundred sixty yi nga xam ne moom lañ ci def yëpp que li ñu joxe mooy li ñu fay ci li ñu yóbbu àddeetu màggal mu nekk ci seventy five thousand five twenty seven yeneen yi euh, li nga xam ni moo nekk euh, Hadiyatou Rahma Disbursement so far liñ ci defagul ci année bi yëpp ñu ngi toll ci 84 603 88 li ñu fay ci kër sëñ Touba yi muy Chicago Memphis mu ngi toll ci 199 182 Euh, TV coverage yi nga xam ne moom lañ doon euh, TV coverage bu FONCAB mi ngi nekk si si euh, six thousand five hundred fifty six forty four yi nga xam ni moo nekk social disbursement yi ñu defagul sofa far mi ngi nekk si two thousand eight fifty léegi lépp li nga xam ne moom lañ génnee ci li dugg lépp ci euh, ci fondation bi 516 661 59 li génn yëpp mu ngi toll ci 433 9 627 léegi mu des 82 698 89 ñu wane ni di wax ni rek muy lii yëpp ci 2021 bi muy euh, année 2021 bi di wax ni lii ku ko soxla ci jëwrin yi ba ci executive team euh, am nga am ngeen accès si Fonka workstation bi ci euh, kii bi joxe naa ku amagul accès mën nga envoyé sa email ñu ajouté la ci nga lii nii moom mooy finance bi nga xam euh, euh, Fonka workstation bi nga xam ne finance moom lay liggéeyee boo ñëwee bank statement yi di nga ko fi fekk muy bank statement 2021 yëpp di nga ko ci fekk ak 2020 yi cash app bi nga xam ne moom la ñuy utiliser aussi boo ñëwee tamit di nga fi fekk ripot cash app yi yëpp donc question boo am ci finance rek boo ñëwee ci sa members ci jëwriñ yeeg yëpp boo ñëwee dinga nga fekk report yëpp fii muy cash app bi ak banque statement yëpp banque FONCAB bi yëpp statement yëpp di ko fi fekk ak fund request bi mi nga xam ne yi ñu approuve yëpp yi war génn ak report bi ñuy def euh, ak report yi ñu def yëpp muy Euh, si année bi comme bi ma leen euh, doon kiiwal sànq muy euh, income statement année bi léegi income statement ne année boobu bi ma doon kii moo nekk ni ñu si détail bi comme montant yooyu ma joxe détail yi bu nekk boo ñëwee di ko fekk ci ci détail kii yooyu noonu mu nekk ni détail yi nga xam ne boo ñëwee total montant yi ma joxe noonu yëpp boo ñëwee ci détail bi nii 51 page la comme li ma doon wax ci euh, bi ñuy soog a commencé nga xam ne montant boo xam ne dugg na bu nekk dinañ ko duggal alloqué ci compte bi nga xam ne foofu la war a nekk léegi boo ñëwee ci loolu ci détail kii bi nga koy fekk. nga xam ne euh, total bi ma la jox ci income statement muy àddee total màggal bi boo ñëwee détail yëpp ngi nii daayira bu nekk ak li mu joxe montant woon montant bi ak banque statement euh, ak fan la ko dugal bu dee la ko dugal au si kër sëñ Touba bi au ci banque bi au zaw di nga ko fekk fii boo ko bëggee gis tamit di nga ko dem fekk ko ci statement banque yi addiye màggal Touba bi si mi ngi nii ba daayira bu nekk ak montant bi 51 page la mënuma ko print pour jox ku nekk dafa bari mais ku ko bëgg a gis di nga mën a dugg fii nga xool ah, di nga mën a dugg ci kii bi diitayal bi pour xool montant yëpp montant boo bëgg a gis li nga xam ne moom lañ déposé bien li nga xam ne moom la ñu génnee ci statement yi boo bëggee gis tamit approval bi mën nga dem ci si euh, workstation bi pour mën a ñëw xool fii pour mën a ñëw xool fii yi ñu approuve yëpp ci année bi xaalis yi nga xam ne moom moo génn yëpp yëpp a ngi ci muy Hadiyatu Rahma ak euh, administration muy kii ñuy approuve yëpp yi war a génn IT social public relation yëpp mi ngi foofu léegi ku am benn question waaw jërëjëf soxna Diarra uh, uh, ngeen jëf ci vidéo bii ngeen doon seetaan képp ku ci bëggaat yeneen vidéo da ngay fii ci Foncab TV Foncab di fondation Cheikh Ahmadou Bamba bu Nord America bi nga xam ne moo lëkkale daayira yi nekk fii ci États-Unis ak ca Canada